demb ci goudi lutax ma yeexa teud tëdd dañoo di préparer Adji sar pour sonku xol Adji sar day génn après Adji sar day génn après dañoo dañ na préparer Adji sar bu MC Niass waxee comme nuñ def sonku lolou lañ def Adji sar bu sonku bu euh, ki génnee MC Niass wax ba paré xam lan lañ préparer Adji sar Adji sar day génn conférence de presse ne MC Niass day fen saaga ma parce que xam na ni nu mënuñu ci jot mais buñ ko jotoon xam nga ku taxaw di saaga MC Niass wallaahi laa la wax xoolal buñ la jotoon teg la loxo kon lépp leer mais xam na fu mu nekk mais Adji saar après MC bu defee lii dañuy indi Adji Sarr mu saaga MC sosol ko comme nu mu ko yàgg defee buñ ko doon préparer ba démb buñ koy préparé xam la lañ ko wax pour wax MC da ko doon doxaan da ko doon jéem a kepp proposé na ko sax jabar aji nee na mu bañ MC di ko jéem a baab loolu lañ préparé nii de. ginnaaw audio yooyu ak appel bi nga xam ne Baye Mbaye MC jot na ko am ak Adji Sarr ak la nga xam ne moom la Adji Sarr jot a expliqué Baye Mbaye c'était raisonnable que euh, ñu daal di koy oolu daal di koy teewlu ni ki démb loolu bi mu amee itam gis nañ ci loo xam ne jot na fuité par rapport ak. tontu yi nga xam ne Adji Sarr tontu na ko ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñoo di enquêteurs yi la mu jot a xamle moom moo di c'est vrai que audio yooyu lu existe la mais benn piège la boo xam ne daf ko doon teg ngir piéger ki nga xam ne moom moo di Baye mbay parce que gisoon nañ fi aussi euh, lu jëm ci côté mariage boo xam ne doon nañ ko fi wax Ahmed Françoise Hélène Gueye moo ko fi njëkkoon wax di baax ne mbay m MC dafa proposé woon Adji Sarr mariage boo xam ne peut-être moo jur yi yëpp Adji aussi lu ni mel dëggalaat na ko démb mais lu ñu mën a jàpp si audio yooyu Adji Sarr confirmé na que ne lu existe la lu am la moom moo wax wax jooju mais daf doon piéger ki nga xam ne moom moo di Baye Mbaye